li ci yenn kaay yi li ci yenn yi El Hadji Elhadji Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yi yéenekaay yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo daanaka Sénégal xëy yaram yi ne ñoog yéenekaay bi di l'Observateur xamal ne kay al nga xamal ne am jot nañoo leen ca wàllu bi di ñu xamal ne am na lu toll ci juróom benn nit ñoo xam ne réewum France fa la fekk baax ñeneen ñaar ñi fekk baax fi nga xam ne nag moo di réewum Suède yéen kaay bi dañu xamal ne mbir ya kay noonu la demee waaye am ne nag moo am démb yéen kaay bi dañu xamal ne sapeur pompier lu ñu mën def nañ ko ngir wàllu ñooñee nga xam ne ñoo am ay jafe-jafe ci ndox mi yéen kaay bi dañu xamal la république Macky Sall moom kay moo jógaloon boppam dem fi nga xam ne nag foofee toll ci ñaar fukki minutes yoo xam ne moom jiitu réew mi am na ko waaye ànd ak ki nga xam ne nag moo di Sidiki Kaba ak yeneen kilifa yoo xam ne ñoo nekkee ci réewum Sénégal vox populi duñu xamal ne ñoom kay démb ci guddi kay daanaka kilifa yi réew mi ñu bëri gërëm nañ ci lépp loo xam ne nak jëm na ci fànn gu nu mel Les Échos yéenekaay du ñu xamal ne ñoom kay la muy laajte moo di mbaa du am ñeneen ñoo xam ne nag des nañ fi nga doon na amal ak faju ci lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu xel keneen koo xam ne muy Ibrahima Diop yéene kaay bi di lu di ñu xamal ne maanaam mooy Sonko moom Seydou nga xam ne daal di koy jëmale ci ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko di xam ne ne maanaam Ousmane Sonko xibaar yi nga xam ne daal da koy joxe ci lépp loo xam ne jëm na ci gaz beeg pétrole bi amul lenn loo xam ne nag xam na ko ci jamono ji nag Ousmane Sonko tegaat na ki nga xam ne nag moo di Seydou Gueye place am di ko xamal ne moom kay moo xamul dara ci li muy wax.